établissement takku liggéey kër yaay mbenn gajaga Dakar poste caaro yi ñépp ko ràññee fii ci ndakaaru waaye dañu ubbi fu mu toll nii ñaari dépôt matelas dodo yu mucc ayib àndandoog waa usine Socamous ak waa Sosenap ak usine peinture coloris fii ci Touba ci dëkk bu tedd bi ci rond-point garage Daaru Musti jano ak garage mécanicien ak tamit sur la route de Guédé en face fi charrette Guédé yi nekk établissement takku liggéey poste caaro yi wol gérant ba Amadou Ndiaye ci 77

98 190 suñuy matelas orthopédique yii bi épouser sa yaram te di ko defar sa yaram di noddantiku bu baax matelas mer gàddu nag am nañ ci bépp dimension dañuy jaay tapis grand modèle petit modèle chaise plastique ventilateur ay njëgënaay modèle yu mag ay njëgënaay modèle yu ndaw ak njëgënaay seen best chaise pliante pan ak satala table à manger bassin Sosenap bépp dimension type orange Sosenap bépp diamètre triangle doré 2 mètres à 6 mètres pose pied balai brosse valise bépp série vente de peinture coloris deux kilogrammes ba 23 kilogrammes ak huile vingt kilogrammes ETS takku liggéey kenn du ñoom.